auzu billaahi mina seytaani rajiim wa min kulli man lam yuhibbani min rijaali wa nisaay wa inni uhiisuha bika wa durriyataha mina seytaani rajiim rabbi auzu bika min amasaati sayaatiin wa auzu bika rabbi an yaxduruun rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli wajal lisaani waxal bi saakiri kamaxan hindal mamaati mahal imaani yallaahu saddid lisaani nawir janaani safi amaani wasid barayi okut mi salana min sharri hasidin mahshari famin wa darrin ayni yallaahu wa darri sihrin wa darri xalqi insihimu mah wa sawaati summi yallaahu وكن أمامي وكن خلفي وكن وسطي وفي يمين لسمالي يا رجايكني باب الهداية مخلاق الخواية مفتاح الدراية يا سل قلقني الوسني لنبلونكم لسابرين أحسب الناس لكاسبنا <clears throat> mbokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu te di leen siyaara te di leen ndokkeen fas yéene dee si waxta génn ci suñu bindub tey sunu waxtaanu alquran niñ ko baaxoo amal ci suñu weeru koor di ci ànd ak seen mbokk seen xarit Serigne Mbacke Lo Xassida Ngabou naka noonu ki nga xam ne mooy sunu technicien di Serigne Cheikh Bey tey nag ñu ñëw ak bokk yi ci sunu fukkeelu bind ak ñeent ci weeru koor wi ñu fas yéene waxtaan ak yéen saar woo xam ne saar wu ragluñ la waaye saar wu fàttali la waaye saar la woo xam ne day mboolem nit yàlla yi góor yàlla yi ñu ci bëri bu ñuy jàng saar wi dañuy tiit ñenn ñi bu ñuy jàng saar wi ay ronkañ lañuy simboo di ko yeggale am na ci yenn ti boroom xam-xam yoo xam ne day saar wi jàng nañ ko ci seen kanam ñu faatu ca àll dugg leen bañ far ca faatu bari na it ñoo xam ne jàng nañ saar wi doxee ca faatu ndax lan xam gi ñu xam li ci suñu borom di wax ak xam gi ñu xam ne sunu borom moom lu mu wax rek dees na ci tig bët ak xam gi ñu xam ne sunu borom du koy waxantu te sunu borom moo wax ñoom nag la sunu borom wax yegg ci seen xol sunu borom defal leen ak leer loola yegg ci seen xol moo tax mu tiital leen moo tax euh, alxuraan rek kay dëgg téere bi nag daa doon téer bu tedd téer bu màgg téere boo xam ne mooy téere aji gindi ñi réer ñi waaye téere bi mooy téere bi yokkub xam-xam ñi nga xam ne dañoo amub xam-xam te di ko jëfee yàlla suñu borom di ci gën a defal seen xol mooy téere bi nga xam ne ku ko jàng di am tiyaaba soo koy xool di am tiyaaba boo jëlee sa njaboot yóbbu ko ngir ñu jàng ko yàlla di defal tiyaaba téere boobu daal mooy alxuraan téere boo xam ne soo ko bëggee yàlla fay la soo bëggee ñu ko bëgg yàlla fay la te su yàlla dogalee nga jël sa doom dugal ko ci nag yàlla goree la ci sawara téere la boo xam ne it saa yoo ko bëggee it ëllëg yamal xiyaam day ñëw ràmm la ndax loolu sax xaddis ñëw na ci kon xam naa bis dina ñëw ñu ñëw ci nag ci waxtaan woo xam ne dañ koy wax rek ci xaddis yi ak gaay yàlla yi li ñu wax ci téere borom bi subhaanahu wa taala saar woowu ñu fa yéene waxtaane nag tey mooy sóoratu tàkkaasur mooy saaru ëppalante fi jamono ji toll nii nag nga gis jamono ji fi mu toll nit ñi ëppalante alal di jóg ko daanu ku ne di wanewu ku ne di wan sa moroom lii laa la ëppale nii laa mel ci yow daraja ji laa am nii laa mel ci nit ñi nii laa mel ci àdduna bi ba fàtte yàlla sunu borom te loolu waruñu saar woowu nag tey lañ fa yéene waxtaan a ngeen muy sóoratu takkaasur muy saaru ëppalante saar nag mi ngi wàcc makkatal mukarram di saar woo xam ne saaru delluwaay la waaye saar la woo xam ne day ay njariñam fees ko takk rek wees na ko ndax saar woowu day daa doon saar wu bari njariñ fees dell dell dell dell <clears throat> ak njariñ yoo xam ne mboolem jullit ñépp mën nañ ci jariñoo moom nag bi muy wàcc mi ngi wàcc màkkatal mukaram mu ngi wàcc ginnaaw bu euh, kaw sar wàcce saar yu moo ci topp ginnaaw daal bi kaw sar wàcce moom mi moo ci topp di saar wu bari njariñ woo xam ne ay njariñam foo ko takk rek weesu na ko moom saar wii di suuratu tàkkaasuur doon saaru appalante auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhaakumu takaasuru xatta surtumul maqaabir kallaa law taxlamuuna xilmal yaqiin la tarawna aljahiim suma la tarawnahaa xayna alyaqiin summa la tusaluna yowma isin an mu ne ci turu borom bu màgg bu tedd boobu daal ci lay tàmbalee samay wax ak samay jëf moom mi nga xam ne lépp la nit di sàkku di ko bëgg ci kaw suuf te bëgg ca tedd nga wala bëgg ca tiyaaba wala bëgg ca ak barkeel ci turu borom boobu daal ca ngay tàmbalee lépp loo xam ne yaa ngi koy yëngu ci sa yëngu ci kaw suuf waaye borom boobu nga xam ne moom loo tàmbali ci moom mu barkeelal ko di borom yërmaande ji nag yërmaande ji daj kapp àdduna bi yërmaande ji daj kàpp mboolem mbindaa yi waaye doon yërmaande joo xam ne dafa koo sëmbartal ci jaamam yi ci ñaari ndijji bopp yi ak ci mboolem mbindaa fan yi muy nit ak ginne ak mboolem mbindaa fan yi xel daj ak lees xel dajut lees bët a gis ak lees bët mënta gis ñooñu ñëpp daal ci géej gi ak ci jéeri ji loolu lépp daal suñu boroom mooy boroom xéewal gi mi leen yërëm ci yërmandeem xéewalal leen doon na xéewal yu dijji daj mboolem mbindaa fan waaye borom boobu nag mooy boroom xéewali sew yi nag yi nga xam ne ak bàkkar feggu la gu mu faggul mboolem ñi nga xam ne nañoo saxti di ko jaamu te boolewuñ kook lenn moom sunu borom boobu subhanahu wa taala loolu nag nga xam ne defal na leen ko nag muy lu ama am solo xéewal yoo xam ne nag ma nga tàmbalee ca ginnaaw ba ñu faatoo ne ca bàmmeelee ne barsàq ba ca bisu pénc ba di bis ba nga xam ne kenn ku ne da nga bëgg ko la keral da nga bëgg ko la dalal da nga bëgg ku la dimbale da nga bëgg ku la defal xéewal waaye xéewal yooyu du dog ak ñoom ba baa ñuy naan ci déeg ba waaye du dog ak ñoom ba keroog ñuy tàbbi àjjana nag mu doon xéewal yu sax dàq ci turu borom boobu daal ci la ñu tàmbalee suñuy wax ak suñuy jëf mu ne ëppalante fàbbi na leen ba ngeen seenu bàmmeel ya ba dee dikkal leen kon ngeen gis ëppalante alxaakumu tàkkaasur ëppalante fàbbi na leen kon man nga ne puukare yóbbu na leen ba ngeen fàtte seen boroom fàtte seen boroom bi leen bind te xéewalal leen boo leen xéewal yoo xam ne defal na leen ko waaye ngeen topp ëppalanteeg puukarante am naa diw am naa nangam am naa nangam maa ëppale diw nangam maa ëppale diw nangam mu fàbbi leen ba ngeen fàtte seen boroom waaw ba foofu nag dee ngeen dem ba gis bàmmelee nag dee dikkal leen mooy nit ki nga xam ne dafa dem ba tawatal ndee na ko carxal nga xam ne dootul dëpp dee dikkal leen ngeen gis bàmmelee dee dikkal leen mu ne déedéet dangeen xal seeta de te it dangeen xal seeta xam luy de mu ne topp it dangeen xam lan mooy dee li nga doon dégg bu demee ba gaar la danga ko mujjee xam loolu nag dafa mat a bàyyi xel doon ay sew-sew yu yéeme moo tax mu topp déedéet mu ne déedéet su ngeen xamoon dëgg-dëgg ngeen am xam-xam bu wóor bu wér ci lii mu leen wax ci moom de su ngeen amoon xam-xam bu wóor bu wér ba ngeen gis tàkk-tàkkul sawaraw jahim na muy tàkkee ak na mu mel na mu raj loo comme que nag dangeen ko doon dégg rek maanaam dégg ñu lay wax sawaraw jahim sawaraw jahim sawaraw jahim mu ne dangeen gis sawaraw jahim waaye nag mu ne fii mu ne nii dangeen ko gis ci seen gët maanaam da ngeen ko gis ak bët gis gu wér gu wér goo xam ne day biir ne jàkkaarloo nga xam ne lii mooy dëgg-dëgg sawara mu ne nag te bu keroogee nag ay bu keroogee mu ne ca bu keroogee rëccu day fekk jëf yees waaye ay bu keroogee mu ne def na leen laaj nag mboolem xewal goo xam ne yàlla sunu borom defal na leen ko rek ci kaw suuf yàlla sunu borom topp nag dana leen laaj loola ca bis booba mbooleem xéwal yoo xam ne defaloon na leen ko ndaxte comme jaam bi di ëppalante maa la ëppale alal maa la ëpp oto maa la ëpp doom maanaam topp po ñox àdduna moomu te yàlla suñu borom xamaloon nañu ne seeni doom seenu njaboot seen alal lépp fitna di ci yéen waaye nag nit ñi daa mel ni ñu topp fitna jooju ba fàtte yàlla suñu borom te yàlla de képp ko fàtte bu la fàttalikoo rek da nga da nga da xam ne nag moom day képp ku mu fàttaliku rek nga xam ne fàttaliku na moom borom bi subhaanahu wa lu dul ne jaam bi jéem a fàtte fàttalu yàlla yàlla doon la xamal ne la da faatu te dee dana la dikkal yaa ngi doon dégg sawar a jayam waaye alal ji la yàlla joxoon nga di ko sànq topp ñi nga xam ne gëmuñu yàlla wala di ko puukare di ko def ci barab yu araam yi topp loolu rek mbumbaay mi ñu naan la yaa fi ne yaa fi raw yaa fi gën yaa fi man yaa am lii yaa gën lii yaa gën lii nga topp loolu rek desul nag nga dem ba dee nag woppi dee na la carfal lépp won la gannaaw nga tàmbali di rëcc foofu rëcc lu muy jariñ dootul jariñ ci dara woppi dee jooju na la carfal nag nga daan dee ma nga daan dégg nag ñu naan la dee dee nga jàppoon na ay caaxaan la moom dee moom da nga ko daan dégg jàppoon na ay caaxaan la léegi nag dégg ga nga ci daan def defatoo ko dangaa dem ba jàkkaarloog dee gi xam ne dee moom ñëw na dootul wàññeeku dee moom dikkal na la te dootul wàññeeku mu bir na la na yow léegi moom dootul wàññeeku te da nga xam ne la nga doon dégg léegi dërngal na la te dootul wàññeeku léegi mos da nga far mos kon li nga mos moom xam nga yow nan la mel li nga xam ne yow mos nga ko xam nga nan la mel muy moom dee moom nga xam ne dëgg dëgg mettitu dee mooy lan nga am ci moom yàqal léegi ju mat sëkk xam nag dee miñ la daan wax ak bàmmeel yan la daan wax léegi nag dee nga bañ dugal la ca bàmmeel bàmmeel yi da ko daan dégg waaye léegi dégg nga ko daan dégg léegi nag dañu far la nag yóbbu la teg la ci kuus bàmmeel wàqi ba mu xool ñu dugal la biir bàmmeel nga am yàqin nag ne dee miñ ma daan digal daan ma wax dee dee dee dee moomu tey dee naa dee gis naa ko far léegi gisatuma ko waaye dama koo def bàmmeel yi ma daan dégg tey nag moom déggatuma ko rek yam ci dañoo indi ba ci wet gi teg ma waaye jëlale naa la waaye léegi dañ maa dugal ci biir bàmmeel bi suul léegi bàmmeel bi moom man maa ngi ci biir bàmmeel bi mboolem lu ñu ma doon wax ci mettitu dee gis naa ko mboolem lu ñu ma doon wax ci bàmmeel tey gis naa ko léegi yem ci de mu ne nag sa waraw jayim comme que mboolem alal jële la yàlla joxoon lépp da ci doon puugari defoo dara lu neex yàlla sunu borom bu boo gisee nit ku ku néew doole doo ko dimbale boo gisee ku war a dimbale doo ko dimbale bu sa mbokk ñëwee di la diis soxlam nga nga nga nga bëccangal ko bu ku tawat ñëwee di la laaj doo ko jox boobu jirim ñëwee nga nga bëccangal bu faqir ñëwee nga bëccangal ah bu miskin ñëwee noonu ba ku ñëw rek ku ñëw rek nga bëccingal jàppe ne alal jaak am ji day sax fekk na lu la yàlla jox la nga waroon cee jaamu yàlla jaamuwoo ci yàlla te alal ja la nga lekk mu rees la nga sol mu rab ak la nga dawal ci sa bàmmeel muy la nga dimbale ci jaam yàlla yi nga xam ne dañ koy yittewoo nit ko am ordonnance ñëw yaakaar la ci nga bëccingal sa mbokk sàngam tawan na ordonnance yi dafa seer nangam ak naa nga war caa def nga bàyyi noonu diw ñëw am ku ñëw ñàkkub dund na la dund bi nangam nga bàyyi noonu rek téye alal ji rek di kopp koppal defub jar rek di jal ba dee ma nga doon dégg léegi mu dikkal la nga dee bàmmeel ma nga doon dégg léegi ñu teg la ci kuus ba yëkkati dugal ci biir bàmmeel bi nga gis ne maanaam bàmmeel ni mu mel ni mu ragloo ñu jekki-jekki daal di jël suuf su bëri kii lañ moo tax sëriñ euh, sunu yaakaar euh, sëriñ Fàllu dafa wax a ju am solo mu ne kër goo xam ne kër gu bees càngaay lu bees sàq kër gu bees sàq ñu tabax ko ci bis bi dugal la ci bis bi muure la wutal la kër gi lépp jag ñu dugal la ci biir mu ne loo fa fekk rek na nga xam ne yaa ko fa yóbbaale wala yaa ko yaa ko jëf allahu akbar muy waxe xikma ju yéeme ju mat bàyyi xel sunu borom nag mi ngi attaas mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mboolem jullit ñi mboolem mbindeef yi ci lii nga xam ne dëgmal nañ ko ñëpp a cee jaar muy dee ak dem ci bàmmeel yi nga dem ki nga xam ne dafa waroon a def lu baax defu ko nag sànq alalam yooyu yëpp nag kooku moom yàlla jaaw sawaraw jaayam rek ak sawara sam ko daan xuppee naan ko moytu la def nangam ndax day tax da ngay dem sawara sawaraw sawara suy tàkk la nga jàkkaarloog tàkk-tàkk la nga doon dégg sawara suñu naa la day tàkk dafa mel nii nga jàpp ña la ko doon wax dañ lay garaawal ndekete lu ñu la wax la ñu bàyyee ëpp sawara soo nga doon dégg nag léegi nag nga doon ko dégg rek léegi nag nga dem ba jàkkaarloog moom jàkkaarloog moom jeex ren gis ko waaye yemutoo ci jàkkaarloog far ñu jël nit ki nag ko ci béy ci biir sawara si nag wala di ko ci séndil ba noppi di ko laaj mboolem xéewal yi ma la defaloon ana noo ko noo ko def maanaam mooy xisaab yooyu dërëm sàngam noo ko amee ginnaaw nga naan nii laa ko amee nii laa ko amee ba nga ko amee foo ko dugal kon loolu lépp day daal di tàbbisiwaat ci biir saal wi kon mbokk yi bu ñu sàng sunu waxtu nañu farlu ci sunu borom te xam ne yàlla sunu borom foo wut foo wut caaxaan wut caaxaan lu ndaxte xëy na bis dana ñëw sax danañ yegg ci bind yooyu noonu boo demee ci sooratu yaasin foofu noonu am na fu mu fay wax lu bari ci nit ki war a bàyyi xel li tax suñu borom indi ko ci àdduna ak bàyyi xel na suñu borom bind ko rek boyal ko noonu rek muy dox noonu rek topp ko dara yàlla da ko togg jëf kon loolu nit ki war na koo xam te bàyyi ko xam ci digganteem ak boromam moo tax alquran mooy téere bi nga xam ne ku koy jàng te di ko sellal dana defar sa xol ba sa xol set wecc ba doo yéene kenn safaan doo doo bëggal kenn ab lu bon kon nañ ci góorgóorlu lu ci jum ñu sant ko yàlla sunu borom lu ci dëng ngeen jéggal nu ko te xam ne matadik doomi aadama la seen mbokk la seen xarit Serigne Mbacke Lo a a saraa